des droits de douane yi concurrence bu jarul yoon mbay njaay dégage lole mooy ñaxtu yi nga xam ne ñii di commerçant karo yi amal nañ ko ñoom nag li jiitu ci li ñuy ñaxtu mooy barème bu bees bi nga xam ne kii di directeur des douanes teg na ko ci seen kaw. un million la daan lañ daan fay ci karo presque mën nañu tripler na ko indi barème boo nga xamante ni kenn xamul fu mu ko jëlee mbay njaay nag ñun li muy joué xamuñu ko. yi moo yàgg dañ ko war a renouveler ba nga xamante ni dina mën a méngoo ñun ak suñuy dem di jëndi à parce que yow da ngay déclarer sa DPI doo ko dem jëndi à l'achat alors que léegi da dem ba fële ah, yaa xam fooy jëndee soo demee ba foofu ci ngay gis li nga li la neex nga jënd alors que fii dañ ne déclaration préalable d'importation fii ngay utee sa DPI ba pare doo ko dem mën ngaa dem fële gis choix bu la gi beneen bu la neex léegi ni ñuy def ndogal boobe nag nar a indi ay jeexital yu metti ci seen liggéey dañuy woo le président de la république son excellence le président Diomaye Faye et son premier ministre ak son ministre de tutelle ñu gaaw parce que kat ñun suñuy conteneur mi ngi ci biir port bi depuis te lim nuy jaay lim nuy fayu ñun duñ ko fay sax amuñ sax waxtaan amuñu ci dara population bi ci boppam ñoo koy njëkk jàmbat ndax dañuy gis ni karo yokk na ndax ñun suñ nu tegalee dërëm ñu teg ci dërëm bokk na ci li ñuy ñaawlu itam mooy concurrence bu jaarul yoon bi nga xam ne entreprise yi jóge ci bitim réew ñoo ko indi ci réew mi indien yi aussi pélule suñu marché bi feesu del di jaay détail alors que su dee jaay détail dàquñu ñu ko ñun moom lañ daan def di importer di ñëw di jaay di jaay détail ñoom ñu indi des usines implanté ko fii di jaay détail jaaduwul. association commerçant karo yi di xam xamle ne fas nañu yéene dem ba jeex ci combat bile te itam ñuy xamle ne fii lekk fan yi ñu la su fekkee ne kenn dégluwu leen dinañu amal ab dox ñaxtu ci seen ñaareelu plan d'action.